na Abdoulaye Wade na ngir PDS daal di jotaat ci Sénégal yéen kaay gi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal en tout cas li coow li bëri ci lool Lamine Gueye mi nga xamante ni militant la ci République des valeurs bu Thierno Alassane Sall ca diwaanu Pikine Nord nee na Amadou Diarra mi nga xamante ni mooy maire bu Pikine Nord Amadou Diarra est un politicien qui n'hésite pas à tricher loole nag kàddu Lamine Gueye la mi nga xamante ni ci République des valeurs bu Thierno Alassane Sall la bokk di ca Pikine Nord yéen kaay xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi dikkagul waaye nag tàng na jër ndax nag préfecture bi nga xam ne moo nekk sa Ziguinchor foofe nag waa APR ak waa Pastef bu Ousmane Sonko ñoo fa doon jàppante dañoo xeex ba na saaye jàppante boo xam ne jàppante bu tàng-tàng la yéen kay gi di leen si ko nee na coow am na te élection yi ñëwagul ndax ndey Saly Diop Dieng mi nga xam ne ministre la moom nag dañu ko jox xar bi baaraamu tuuma daal di koy tuumaale jëm ci wàllum transfert d'électeurs fi nga xam ne mooy mairie bu Grand Dakar yéen kay gi di laas bàyyi mbir moome nag wax jëm ci wàllum koom gi nee na marché régional des titres publics de l'UEMOA Sénégal nag am na lu toll ci cinquante cinq milliards ca mbir moomee yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy di ko dëggal waaye nag njëg yi nga xam ne jamono ji yokk na ba maara day taale loole nag tax na collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nee nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu wàcc ci mbedd mi maanaam danañu amal ay marche daan nañu lancer opération fay jot na ndax nee nañu Macky Sall dafa tooñ ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal maanaam dund gi métti lool ñoom collectif ñoo lànk bëgg a sanctionné ñi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu union nationale des syndicats autonomes du Sénégal nee INSAS ñoom nag daan nañu tuumaal ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum commerce ci njëg yi nga xam ne dafa yokk ñoom nag daan nañu joxe li nga xam ne mooy ay recommandation ci yéen kaay gi di Les ñoom waa INSAS nee nañu nag ba muy tuule daanañu dem ci li nga xam ne mooy ab grève yéen kaay journal bi nee na jën jamono ji cher na waaye ñu bare bari tegatuñ ko bëta yéen kaay gi di l'info xëy di ñu xibaar naan askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ñenn ci ñoom sonn nañu ba maara day taal yi tey ji nag ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi nee ma Félix Antoine Abdoulaye Diome moom tey ji dina dem ci Touba ci bërëb yi nga xamante ni mbënd ma dafa am yéen kaay gi di l'observateur nee na mbir mu doy waar moo xew ca Gandigal Gandigal nag dafa am benn ciment ak benn fer boo xam ne dañu koo dajale woon nag ngir daal si tabax ab brigade gendarmerie ñu daal di koy koy sàcc yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu gros porteurs yi ne ma camion yi camion yi diiru fukki fan ak juróom rey nañu lu toll si ñaar fukki nit yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Lady Mounass artiste la mannequin la woon yéen kaay gi ne na baayam nag ci boppam nag musuta nangu mu dugg ci showbiz bi moom Lady Mounass moo ko xamle ma ngi ci Rewmi Quotidien daan nay wax nag ne ay jafe-jafe yu bare bari maanaam na ci biir showbiz bi lu ci mel ni promotion canapé daal dafa sexy moom assumé na ko daan nay wax tamit ne provocatrice la ci ni nga xam ne moom lay solo waaye nag nee na daal man ni may solo provocatrice la waaw sexy na lool waaye nag loolee daal taxul ma bon single bi nga xam ne nag defoon na ko fi di banana single boobee nag maanaam tojoon na jamono ci nee na nag jot na ci ay critiques yu bare bare yéen a kaay gi di enquête nee na am na benn enquête boo xam ne ab ONG daan koy def ci lu jëm ci wàllum cagatu gi nee ma jigéen ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp ci Sénégal bi ñu ko xayma 74 pour cent ci jaay seen bopp ñooñu dañu leen a violé yoon ba ñuy xale fa la ñu jógee jaay seen bopp am na lu toll ci 16 pour cent li tax ñu dugg si jaay seen bopp ñu dañoo soyoon ba tas am na lu toll ci 7 pour cent ñooñu nag vice la ñu amee yéen kay gi du l'observateur nee na nag dafa am benn prostitution clandestine boo xamante ni jamono ji dafa am am na ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañu yëngatu ci lu jëm ci wàllum njënd ak njaay mi dañu koy taafantaloo de commerce boobu dañu koy taafantaloo waaye nag ci gare routière yi la ñuy dem ak ci marché yi di jaayanto résolution clandestine la ñuy def du suñuy kàddu ma ngi ci l'observateur yéen a kaay gi di esat xëy ci éliminatoire mondial 2022 ci diwaanu Amérique journal bi nee na bu mag am na niki suba diggante Brésil ak Argentine yéen a kaay gi nee na Afrobasket bi tey jii la demi-finale yi diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire bu ñetti waxtu jotee yéen a kaay gi di sunu lamb nee na Balla Gaye numéro 2 ma ngi ci diggub cercle boo xam ne bu tàng jër lay doon ndax Balla Gaye numéro 2 dafa am ñeenti combat yoo xam ne benn yombu ci Balla Gaye ana nan lay def ak B52 ne